wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaran lahu mas naa yónni sëriñ Mandumbe radiyallahu taala anhu ak gaal ba noppi yàkkamti ko di ko soññu ba mu àggee yëkkati ko mënu koo yëkkati sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaarala demal boppam yëkkati ko ci benn baaraamam mu ne ko lii nit mënu ko sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ko mësuma def lu nit man wér na sëriñ bi bu waxee ne mësuma def lu nit man ba noppi di julli di woor di denc nit ñi di julli di woor di denc dana nu war a jaaxal loolu mooy lan bu nu laajee sunuy xel dañuy xam ne sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu ni muy jullee ak ni muy woore ak ni muy dence la nit ñi mënul ci misaal boo xoolee ay xasidaam loo sori sori ci yàlla subhanahu wa taala danañu la dolli di la yokku ba li nga bëgg lépp nga am ko di la yóbbu ba mu wóorle na yow fii nga mën a yem te boo mënoon a jàll ñi yóbbu la feneen te nga gis ne ay woy la ak i wax yu mel ni woy arab yi ndaka noonu léppam noonu la mel loolu moo tax sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu wax dani tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallahu abga kama ana dal wax ne kulliyati mujisatun ta aqarat wa xayra xayratin ladayka duxirat wallahu alam sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal